ñaar fukk ak juróom million ci suñu koppar ñëw na ci jamono giñ ko soxla jamono ji nga xamante ni hôpital El Hadji Ibrahima Niass bu Kaolack mi ngi yaatal ngir mën a yokk ay lalu réanimation Kaolack Alhassane Ba Walfadjri. jërëjëf Alhassane Ba ñu ngi lay sant di la gërëm professeur Babacar Kanté mi ngi jiite Rëm ak Saltan ngir mu wutu général Mamadou ñankoon ci boppi dialogue national bi lee kangam yi fare ci grand parti bu Malick Gakou ñu ngi koy rafet bu baax a baax ndax mbir mi ba ñu koy tàmbali ci kanamam la woon teg ci borom xam pour ràññee la suñu xibaar yu weesu dégg ngeen ci ah, kàddu yu mu ci rotal moom Pape Medoune Sow ah, moo jiite kon kàngam yu fare ci grand parti du Malick Gakou ana kan moom mooy ah, professeur Babacar Kanté soxna Ndiémé Ndaw mu ngi xamle moom. Babacar Kanté di professeur ci wàllum droit public doon ku ñu jox cër ca IFR des sciences juridiques et politiques de l'université Gaston Berger professeur Babacar Kanté moo ngi gane ci àddina ñaar fukki fan ci weeru juin ci atum 1950 foofee ca bel moom professeur Babacar Kanté carrière bu yaatu la def ci njàngale mu kawe mi lu ko dalee 1983 ba 1995 jot na animé ay séminaire yu bari ci Afrique Europe ak États-Unis fàttali ci atum 1992 professeur Babacar Kanté liggéeyal na Nations Unies ak yeneen i kuréel loolee jur ñu sargal ko fu bari moo xam chevalier dans l'ordre des palm di Sénégal ba ko ñaareel chevalier dans l'ordre national du mérite du Sénégal ba ci médaille officier dans l'ordre national du lion du Sénégal professeur Babacar Kanté lu ko dalee fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru février ba fukki fan ci weeru juillet 2020 jot naa liggéeyal francophonie waaye waaye ci décret 29 janvier 2021 ci la njiitu réew mi fal professeur Babacar Kanté commission politique ci biir dialogue national moo fa wuutu sax dem si yàlla général ña mi génn àddina am na ñaari weer.